le citoyen là di acteur politique aussi di mesurer toujours suma responsabilité en tant que sénégalais gis nga Mansour dafa wax benn wax ju am solo que réew ay doomu aadama ñoo koy bokk dañ koy bokk nag ci ay principe principe yoo xamee ne dafa war a yem pour ñëpp ñu ñëpp gis na ni on a frôlé la catastrophe te li ñu yóbbu ci loolu mooy ay acteurs politiques yoo xamee ni wàcc nañu seen ay responsabilités wàcc seen mission di dawal seeni ambition bopp yoo xamee ni jubboowul ak li nga xamee moom la sénégalais di laaj ak di exiger tey jii ñu nekk réew moo xamee ñi ci ëpp ay ndaw lañu ñi mag ñi nga xamee président de la république moo leen mag mat nañu quatre-vingt-douze pour cent de la population l'écrasante majorité sénégalais yi ay ndaw lañu amuñu xëy kenn formé wu leen amuñu liggéey ñu ngi nekk à la charge de leur famille parents yi waroon dem retraite noppalu tey ji dañuy continuer waat di assumer charge boo xam ne ne jéggi na dayoo lii mooy réalité bi ñu nekk ci biir réew mi bi may dem ci dialogue bi nag j'avais le sentiment que quelque part na acteur politique mënul justifier présence tant que déggoowul ak sénégalais yi mmh. jubboowul ak sénégalais yi ci sénégalais yi taxaw di xaar ku leen fa wuta tontu ak ku leen indil ay solution mu nekk fa taxaw fa sinon acteur boobu amul njariñ ndax bu fekkente ni ku nekk sa bopp rek ngay liggéey ko tam ku yóbbu dem ci privé ba noppalu deuxièmement aussi j'avais aussi le sentiment que ni réew mi ñëpp seeni nopp ak seeni bët may nañ ko dialogue boobu te dëgg-dëgg nag 17 millions à 18 millions de sénégalais bu ñu leen dee déglu ci cas yu critique comme cas yu ñu tolloon je pense que rek bu fekkente ni ay citoyen lañ te am souci wu jàmm réew mi dañu war a duut baaraam fa nga xam ne fa la affaire bi di nekkee et quelque part je pense que j'ai aidé même le président de la république parce que la ma ko fa wax moom la sénégalais yu bare bëggoon ñëw teew foofu wax ko ko le faire c'est simplement remplir ma mission maintenant ñun acteurs politiques yi ñoo ko war a teg ci temps indi loo xam ne dafa war a jubóog léegi wax nga ni léegi renoncé na c'est un très grand pas parce que tey jii bu ñu woon renoncé wu ma ñu ngi nekk ci jafe-jafe kon ñu ko ci sant di ko ci gërëm ci wàllu googu chacun mën na ko interpréter nag nu ko neexee kii mën na ni ko dafa respecter constitution kii nii dafa nangam mais peu importe li ci am solo voici un élément positif jëm ci tàngu jàmm gi mm-hmm. mais aussi jàmm gi yamul woon ci loolu su fekkee dañuy waxtaan rek te waxante dëgg dañu wax ni élection yi dafa war doon élection yu transparente mais li ci gën a am solo doon élection yu inclusive maanaam ñëpp ñi nga xamee ni bëgg nañu bokk ñu mën a bokk te bañ a utiliser justice wala benn taxawaay ci réew mi pour gàllankoor ma sàmba jéeme Karim Wade moo sànq Khalifa sàll moo bëgg a sànq Ousmane Sonko moi je suis quelqu'un de très clair très net man bëgg naa bu may dem élection présidentielle concurrence ak sénégalais yi yépp gis nga bu ku fi dem élection am kenn koo xamee ni war na am cinq pour cent dix quinze vingt wala trente cinq wala lu mu mënti doon mu bañ a bokk parce que simplement am na fu ñu jaar ba bokkul ku fa génn nekk président de la république euh, dina am lu la manqué te un président de la république dafa soxlo te jii fii ñu xàjjalee réew mi ñuy far gauche ñuy far droite président bi ñu war a am dafa war a dajale njaboot bi dafa war a nekk nit koo xamee ni day réunir sénégalais yi ci li am solo loi nag Cheikh Abdoulaye daf ma daan wax jëlee ko ci constitutionnaliste yi ak juriste yi te dafa war a nekk impersonnel ab loi pour mu am njëriñ génn jëmm war a ko tax a ab loi pour mu am njëriñ il faut que mu doon de portée générale il faut que buy taxaw day laaw ñëpp bañ a seete te warul am benn caractère discriminatoire euh, jàpp naa ni fii ñu toll nii am na aspect yu ñu am ci dialogue bi duñu ko xarab dañ koy nangu waaye li ñuy may jàmm tigi tigi tigi tigi moo ñu dem compétition te naw woo Sénégalais yi quand on parle de souveraineté le peuple souverain une démocratie mature du institution démocratie mature citoyens yi ñooy def maturité démocratique boobu ñu may Sénégalais yi te def leen confiance ndax depuis boobu ba léegi chaque fois bu situation bi jaxasoowee ñoom bu ñu voté ils votent avec intelligence bu ñu voté ils votent dans le sens de la sécurité bu ñu voté ils votent dans le sens du progrès parce que ñoom seeni intérêt au quotidien la ñu xool te ay la yëwal réew mi sénégalais yeek moom il faut que ñu def leen confiance c'est pas pour rien qu'aux États-Unis ak noo mën a mel nu sa casier judiciaire mën a mel boo ñëwee def candidature ñu accepter la ko parce que simplement citoyens yi sont majeurs pour xam lan la ñu bëgg lu ñu bëggul ñu ngi wax naan Sénégal c'est une démocratie majeure dans les actes nañ ko bàyyi mhm. laissons à ceux qui font la maturité démocratique de notre pays de se déterminer si loolu la ñuy mën a am jàmm et au delà nag ñu delloo delloowaat buum sa boy boy ba delloo si les lois njiit yi dañoo war a maandu dañoo war a bàyyi par parloo bàyyi sàcc bàyyi par taxas jëmale boor c'est ça qui mine ce pays là et les enfants ne peuvent pas attendre et ils nous déjà montré. mais est-ce que le respect des institutions également warul nekk euh, loo xam ne da ngeen koy porter en bandoulière li tax may laaj loolu mooy ne nga inclusive euh, di élection présidentielle loo xam ne bokk que mbirum yoon bañ a gàllankoor kenn mais est-ce que tamit quel que soit alpha waruñu respecter yoon ba yoon bu délee ab décision euh, ñu respecter décision boobu. bu dee sax gannaaw gi dina am comme ni mu amee wala ni ngay joxtee fi ñu toll nii loi d'amnistie wala pour mën a permettre à tout le monde de revenir ou de de participer à des élections est-ce que nekk candidat wala nekk ci homme politique war na tax ba nga salfaañi mbirum droit mbirum justice au Sénégal aussi am nga dëgg gu wér péng la loi elle est là bi daf fi nekk pour ñëpp benn sénégalais mënta muusa waane jaay ñu doole ëpp ñu fulla ak fayda ba nekk au dessus de la loi ab république la ñuy wax tous les citoyens son égaux de la loi fi ñu amee problème tey jii mooy que ni dañoo bàyyi suñu justice mu nekk ci ay loxo ñu fooye ko fooye ba teyal xelu nit ñi ba tey jii pour nga am euh, confiance parce que c'est ça la justice dëgg dëgg dëgg confiance bi citoyens yi war a am ci moom euh, xam nga on peut pas vouloir une chose et son contraire sénégalais yi ak réew mi yëpp wala bokk ñi nekkoon ci dialogue bi ñoo ni dañoo bëgg def ay réformes pour qualifier ay nit su fekkente ni dañuy wax rek respect des institutions et de la chose jugée ñaar ñooñu même bu ñu amee dëgg si li ñoo bu fekkee ne assan bu fekkente ni justice bi atte naa ñoom pare na ñoom ñoom si on parle textuellement parlant alors soo jëlee benn disposition rek ni kii malgré loolu dama ko war a qualifier ku sa moroom jër béy tamit boo dul béy njëgu béy nga. waaw ça c' une chose boo xamee ni kenn mënu koo dàqal. kan euh, wu Ousmane Sonko ak ñi ñi fi fa rek moom mais am solo ba am solo man dama bugg toujours ni delloo cër sénégalais yi. gis nga li fi xew yëpp sénégalais yaa ngi ubbi seen bët di xool ku fi fooyee justice. ku fi jaay doole ku fi defe ni yaa ñu moom ku fi defe ni nga bëgg par force moom la ñuy nekkee les gens regardent et ils notent. et je pense que ni au moment du vote les Sénégalais peuvent surprendre tout le monde. et ils nous l'ont déjà montré maanaam bu ñu demee ba vote jot Sénégalais bu nekk di nga xool sa réew xool ni waa ji kat ba ñu ko waxee kaay jël alal réew mi daf ko fooye xool ni waa ji kat ma ngi bu intérim taxawee mu ne justice d'accord bu intérim taxawulee mu ne maa bañ. xool waa ji kat day jaay doole day parparloo chaque chose bu nit def yaa ngi ko def ci kanamu sénégalais yi te ñoom defe naa ni sama bopp moo a la gënal firiwul ni dama la bañ bis bu ñu demee ba war a tànn jàpp naa ne ku ñu mënti tànn ku nekk kooku moo gën si ñoom et ils sont dans l'obligation su fekkente ni bëgg nañu fi xeex ñàkk xeex fi ndóol xeex fi injustice xeex fi tappale tànn ki nga xamee ne moo am aptitude yi ak qualité yi pour loolu au-delà d'islam dañoo am besoin wu ñu génn ci tappale politique yi sonnal nañu Sénégal fitnaal nañu réew yi et man ci biir parce que depuis deux mille ñoo woowoon Sénégalais yi ñuy réforme transparence dix ans après ay nit deewaat si te lañ doon bëgg ca bu njëkk ba amatul gestion sobre et vertueuse toutes les théories politiques yi nga xamee ni day rafet neex ba ñëpp ne est-ce que quant à la pratique dix ans yi passé gis nañ mu demee ba tey ji encore la amoon deux mille un ci ñi dee amaat que deux mille onze ñu dee demaguñu deux mille vingt quatre te am na nañu lu ko ëpp qu'est-ce qui n'a pas changé c'est les politiques ñoom nga xamee ni seen i kàddu duñ ko mos a sàmm pouvoir rek bu ñu ko jotee nag daal di soppi jukko mel na neen ñun sénégal yi tamit ñu sàggat dañuy lijjanti xeexalal nit ba mu falu après ñu wëlbati ku nekk ay jaamam bu ko defee mu daal di ñuy samp ordre ordre mbuuram di ñu dawloo et ça je pense que on ne peut pas parce que dañoo nekk ci avenir boo xam ne dafa compliqué ñu ngi am pétrole gars yaa ngi xippi seen i bët xool ñu ñi nam seen jaasi xool ñu nekk dans un environnement sécuritaire bu doy waar nit ñi sonn réew mi tar kenn amatul liggéey je pense que lu gëmba war naa tal leneen lu dul tabiteer c'est ça la réalité il faut qu'on soit prêt pour liggéeyal suñu bopp et nous placer dans le monde am fulla am fayda gëm suñu bopp te bàyyi caaxaan alors euh, bokkoon nga ci dialogue bi Euh, li tukkee ci dialogue bi te président de la république waxoon ni daañu ko jël yóbbu ko assemblée nationale xool lu ñuy soppi est-ce que concrètement li ñu yóbbu euh, assemblée nationale loolu ngeen jubóo woon ci dialogue bi. li nga xam ne moo doon article 87 moom kenn waxtaan na ko fa woon. faut être claire mm-hmm. du sax point de désaccord. ok maanaam bokk ci woon. ce qui veut dire que nit ñi soppee gookuñu parce que je pense que ni lañ fa doon wax su fekkente ni amoon na joxoon nañ ko dayoo bi ñu ko waroon jox ñoom waroon na nañu ruus di si ruumandaat wala di si dugal loo xamee ne wax ko ci woon et ça day téyeel xel nit ñi il faut que les gens changent man dama jàpp nit ñi xaw ma xaw ma seen lan moo nekk si seen bopp yi yow yaa ngi nekk ci réew moo xamee ne des gens ñu ngi dee bay bëgg dee nga na yow mii yow mi yor pouvoir nga tiit ba jaaxle ñu nekk ci opposition bi tiit jaaxle sénégalais yi tiit jaaxle ngeen woote dialogue mm-hmm. ñu ne nii sa waaye nit ñi ni waaw déet nga def jàmm xaw am rek nga génne war sa jikko bërki dem faut être sérieux mm-hmm. faut être sérieux gis nga loolu la ñu war a génne ci mbir mi gis nga loolu mooy tax nit ñi naan def ñu dialogue amuñu dialogue moi je ne suis pas du mm-hmm. man mu kalaf laata maa ngi bëgg a yàgg ci réew dëgg acteur politique laa xam naa ne politique bu wootee dialogue am na lu mu ci làq dafa lew ma mhm. waaye man tamit mu kallaf laa borom fula laa comme ganaaru kenn nanu ma mhm. ku wootee dialogue ku nekk am loo ca bëgg dama lay bàyyeek la nga bëgg man la ma bëgg bu ma teewee ci sa kanam nga xamee ne joxloo ma ma lekk joxloo ma ma naan te maa moom sama bopp wallaay li ma la war a wax te war a ko wax ngir Sénégal ak intérêt Sénégal dinaa la ko wax après nag loo ci def tu seras le et unique responsable parce que bu ñu dof on était plusieurs formations politiques ay yële ku ci dugal ci ñu ci bokkul xam na ko bu baax nit ñi xam nañ ko ku ci liggéey pour Sénégal jëm kanam tout le monde le saura pas dire que la dialogue war woon nekk ah si dañoo war a dialogue parce que dañoo war a génn ci situation bi ñu nekk dañoo war a trouver ay solutions mais de grâce lu mag def gay sax bu sa dekkee daf ko war a bàyyi. ci Papa Dieye wax nga ni article 87 bokkul woon ci recommandation yi nga xamante waxtaanee woon ngeen ko ci dialogue bi pourquoi lan mooy justifier exactement dialogue bi euh, wala assemblée nationale ñu woote pour la modification de l'article 87. ah kooku dañ koy laaj nag ñi ñoo yor projet de loi bi dugal ko assemblée nationale nga dugal man man ak yow ci yam man damaa yeewu suba rek dégg ni. ñu ah, ngi modifié ak 87. concrètement yaakaar ne amul lu ci làq ci ginnaaw. mais bien sûr <laughs> parce que il faut que ñu sérieux yow boo waxanteeg say nawle ba ni lu ñu fa génn dañ koy yóbbu nga dem ba sa biir dugal loo xam ne bokk danga nga koy teqale da ngay wax nit ñi ni lii mooy li génn ci dialogue bi lii nag sama mbiru bopp la mu leer ñu xam ni dialogue am na ak sa projet bopp mais doo jël loo xamee ne sa projet bopp la. gis gaal guy dem ci kaw Jolof nga ran dugalaale ko ci biir ni nañ ko yóbbaale loolu ça se fait pas. que foog ni genre Jolof rek parce que. mais bien sûr ko dugalee seen député xam a ko Macky Sall yore. Ah. mais bien sûr parce que déjà. dafa ah, amul sens sax. parce que man dama jàpp ni booy def benn projet de loi da ngay xool intérêt projet de loi bi d'abord dans l'immédiat. dañ ne ñoo bëgg a tas assemblée nationale mais à partir d'avril deux mille vingt-quatre boo ci tegee juróom benn weer je crois ñu dem septembre wala avant septembre assemblée nationale bi day boucler deux ans yi nga xamee ne mooy garantie yi mu waroon am donc mët nañu dans ces conditions là parce que légalement alors pourquoi ñuy précipité wu parce que tey ji un nouveau président de la république ban assemblée ngeen fi gis ñu fal benn président de la république assemblée boobu nekk en opposition ak boobu liñ fi gisagum yëpp mooy que ni un